waaw noo ngi fii ci xan ci ndigalal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir ngir setal dëkk bi eh, nu ànd koog nag Xeweul gi TV moo ngi nii reportage bi ñoo koy def kon eh, nu bokk farlu te góorgóorlu ci liggéey bi murid ndigal la saxoo murid ndigal ñu ngi ànd ak eh, fédération Safinatul Aman ci ñi dal Serigne Bassirou Mbaye waaye comme moom daa xaw a génn mi eh, nu ngi ànd ak Serigne Alassane ki topp ci jawrin ji Serigne Babacar Mbow Serigne Saba si Seck waaye Serigne Mbacke Mbaye Mouhamed Ndiaye Ibrahima Diop Moustapha Mbow ñëpp a ci mbooloo mi eh, wax dëgg yàlla soxna yi ànd ñoom ñoom nu ànd ak fédération waa kër suntu waaye ak la ko war yëpp kër seet waaye itam eh, noo ngi eh, li ak li war pawaskato kër gàmm meng ñoom Cheikh Ahmadou Bakhoum ak yor Porokhane ñëpp a ngi fi rek comme ku lim doo matal waxuma doo jum naka dul matal moo tax ba bu nu waxee ñooñu rek wane na ne kon ñëpp a ngi fi senegal gépp a ngi fi lii nak nag tegu ci ndigal rek ndigalul serigne bi jaara ko ci serigne basirou mo ci ci serigne Cheikh Astou Fall Mbacké mu jox ko dongo yi kon dongo yaangi jege ci gox bu nek fépp lañ jege ci aduna bi eh, ci réew mi ngir fekke ci day bi bes eh, ngi sadal dekk bi murit mourid nak nako serigne basse ke waxe rek njëriñal murit lepp moy def ndigal bu neexee bu tiisee na bég ngir defal kon sunu njëriñ ci àdduna def ndigal rek la ndo ndox bi ñu jëlee ndigal li mu ne bu neexee bu tiisee na bég ngir defal waaye nag da cay taar ba buy euh, mooy kàddu buy jib na xam bu yéexee te mën a xam ngërëm faat na moom kon ayca murit ayca murit ayca murit yal nañu ci am ngërëmul seriñ bi yal nañu ci am ngërëmul sëriñ bi am ci ngërëmul soxna jaara barke Cheikhul Khadim ayca murit ayca murit ayca murit ayca murit nii rek la de nii rek la ñàkk jëriñu jëf jël la lu waay jëf yaa ko moom te itam sëriñ Basiru nee na def ak Bàmba ay bong te buru xëy di fay nga yor say signature gën ñàkku kenn ku ne tey signé na bisam bi bés bii na yeex ba su ëllëgee eh, lii mooy doon sa sa sa teewaay sa signature ci bés bi kon def ak Bamba ay bong te bur xey di fay nga yor say signature rek yoon lay ay ca murit ay ca murit ay ca murit ay ca murit no ngi ni and ak xewal gi TV way ci ndigalal Serigne Bassirou mbake Porokhane gëna bu ko ku teel ku kilifaam ki joxe ndigal li Cheikh Moul Mountakha mu jox ko rakam ji sëriñ Cheikh Astou Fall Mbacké mu wàccee ko ci dongo yi ayca murid ayca murid ayca murid muridu laahi nan sax fi laahi tey xam ne laahi ba fekki bamba bul def ku ñàgg bul def ku ràgg bul def bamba bul fooga yey maam melal ne ab jaam loo xam nga jox daam bewar ca lala ba kon kenn rek wana foogoree maamam muy sëñ Basiiru kon fii diwa fii sama maam jaru ko ay ca murit ay ca murit bul foogoree maam melal ne ab jaam loo xam nga jox daam ba war ca dara ba te xam ne bakkan xëy la bu bon góor la gu sàggan dabil sa cër ba ay ca murit ay ca murit ay ca murit ay ca murit kenn ku ne ñun war naa mën a bëggee war naa mën a bëggee bés bii tey ndax ñi nga xam ne kat àdduna rek dañuy bëggee tey seen ité yëpp mooy bu xew-xew àdduna amoon fa ñu bëgg feeñ feeñ feeñ ca eh, lay wane nit ña kon ñu nit weer nañu ne rediffusion dana am kon nan bëggee su ëllëgee bu rediffusion di amee kenn ku ne gis sa bopp ci mbooloom Sëriñ Tuubaa mi ay ca murit ay ca murit ay ca murit rediffusion dana am de ëllëg rediffusion dana am bu amee kenn ku ne na fexe ne faw rek ñu gis ma ci rediffusion ba yàlla moom naxunu yàlla moom naxunu ndax amna xew-xew yo xamne yag na lol 1960 tay man nañu tegaat film ba nga nga gis ko kon yalla bu ne su ëllëgee lu way def dana ko wonat war nañ ko mëna gëm war nañ ko mëna gëm kon nan farlu fep fu serigne touba wote nan ca feñ te jëf ca ay ca mourid ay ca mourid ay ca mourid ay ca mourid wo len góor wo len góor wo len góor jaa jëf ay ca aw kumba aw kumba aw kumba jigéen ñi kenn demul baleen jigéen ñi soxna yi kenn demul baleen woogo aw kumba aw kumba waaw kay waaw kay murit ay murit ay murit ay murit sëriñ instant ngoo ma ngoog bëgg fàllu yaa ma yaa yaa yaa bëgg ku ma da bëgg bëgg fàlloo ngoog Mbacké Balla